di jaajëfal bu baax l'écran mi ñuy gunge ci euh, matinal bi euh, saa su nekk ñu egsi ci jàngat bi ak Charles Faye Charles maa ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu bu baax baax. Euh, ñu fi nekk ak ñu nuyu seetaan. Hmm, alors Charles <laughs> tey ci suba ba démb sax laay wax ba léegi ñu ngi ciy wax muy blessure bu Sadio bi alors intitulé sa jàngat bi c'est Sadio Mané la blessure qui change tout Badou sa yaakaar dafa tas amatoo ci yaakaar wala. non boo bu ñu xoolee loo xamante ne moom mooy communiquer Bayern Munich euh, mhm. mu am blessure euh, si ñoom lu ñu wax maanaam si péroné ba maanaam si yàq ga mhm. euh, te loolu am na ay examen yoo xamante ne ñoom diñ ko defa di pour gën a xóotal information bi xool blessure bi fu mu toll mais lu wër mooy que du jouer prochain match waxuñu nag il est hors de de lu mu tudd que dafa am temps de récupération ñaata semaine lay doon mhm. wala yu demee noonu de convalescence loolu waxuñu ko te loolu Euh, bu ñu amoon information boobu ba ne la par exemple c'est deux trois quatre semaines fa ngay xam ne que coupe du monde bi jeexul mais bu boobu amuñu information bi kon lu ñu mën a def yëpp mooy euh, lu mu tudd euh, toog rek di spéculer. Mm-hmm. wante boo xoolee entre blessure bi démb bu mu bu ñu déggee blessure bi ak tey moom lu nekk wax nañ ko fi. donc déjà si appréciation maanaam si nit ñi nu ñu jëlee information bi rek xamal ko lu bëri changé na. Mm-hmm. lu bëri changé na nit ñi tiit nañu. Euh, te bu fekkente ne aussi euh, Sadio Mané demul coupe du monde day changer lu bëri. day quand je tout ça veut dire que du terrain maanaam si euh, staff technique ga si gestion équipe ba si kaw plan de jeu si kaw jeu bi si kaw terrain nga si biir kër yi nga xamante ne sénégalais yi ban coupe du monde la ñuy seetaan. Mhm, ak joueurs yoo xamante ne dañu war a redoubler de vigilance redoubler de lu mu tudd d'ardeur d'effort pour ñu gën a mën a confiance ne serait-ce que pour. Sénégal mais joué aussi pour Sadio Mané donc lu bëri lu bëri lay laaj mais boo demee tam si yeneen fànn mooy si yeneen secteur mooy que loo xamante ne fête la waroon nekk mun na nekk feebar te bu nekkee feebar kooku politique yi dinañ a sentir te ku si nekk di nga jéem a xool parce que euh, coupe du monde bi dafa meloon si ñun kii la waroon nekk genre euh, parenthèse boo xamante ne intermède nga xam ne ñëpp sénégalais yëpp te tous les sénégalais confondus waaw mm-hmm. waaw comme l'a été la CAN tous sénégalais confondus war a def la la paix des braves la trêve manko manko uti ndam mais bu fekkente ne euh, Sadio Mané newu fa ba pare équipe ba euh, new loo xamante ne joxul lu mun a xaar wala deful effort Euh, yoo xamante ne moo mën a Sénégal mu gën a avancé imaginel contexte bi comment ça va être accélération de processus sax dina am donc loolu tax mu ne c'est la coupe du monde qui change tout. xam nañ ban impact la am ci ci équipe euh, je pense que tey Brésil san Neymar euh, Argentine sans Messi ou encore euh, France sans Mbappé pour ne citer que cela réellement dafa am li nga xamante ne conséquence les jur mais est-ce que une équipe quand même comme le Sénégal bi nga xamante ne mu ngi door a jógee nekk champion d'Afrique a ce droit peut-être de tout miser sur une star ban alternative la ñu mën a am mais euh, ay joueurs yoo xamante ne manqué nañu coupe du monde te nekk star seen équipe bëri nañu ah. Brésil bu ngay wax ni Romario jouéwul boo demee Argentine da nga ne Messi mais y avait Passarella jouéwul coupe du monde. Euh, boo ñëwee yeneen star ak yeneen star bëri nañu. Euh, Père Laye Diaw mu ngi koy fàttali. déwén waaw lu bëri ñu bëri euh, Pelé bi sax am na Pelé Pelé si boppam nga xamante ne bu muy feeñ ba joué première coupe du monde. am na coupe du monde boo xamante ne si banc bi la toog jouéwul parce que ko ko remplacé def na liggéey bi. donc ça a des joueurs comme ça Zidane 2002. dafa blessé à la si benn match nu mu tudd amical. match préparation il n'a pas joué loolu xëy na moo indi que France. teel a toog 2002 donc des des exemples comme ça bëri na bëri na mais sa question fu mu amee intérêt euh, intérêt mooy est-ce qu'il faut pas construire benn équipe bu gën a forte que le joueur le plus fort d'accord par exemple voilà est-ce que amu waroo tabax collectif bu gën a fort que joueur bu gën a aay kooku boo xoolee par exemple sur le le, le modèle allemand où on n'a pas de de grand de am na xëy na ay stars mais ñoom dañuy miser sur le collectif. tout à fait et combien de coupe du monde a gagné l'Allemagne quatre am na et kooku boo ko jëlee boo defee ba extrapolation par extrapolation loolu tax ma ne la ça change tout parce que de la même manière que tey euh, Cissé avec son staff war na xool bu fekkente ne Sadio ne vient pas ban équipe lay teg en place. pour que sa joue et que Sadio Mané maanaam dépendance boobu du feeñ et que Sénégal def yoon mais boo ko jëlee tam si loolu ça veut dire que toujours un système wala une équipe doit être plus forte que le joueur le plus fort mhm. par exemple le Sénégal doit être plus fort que le président Macky Sall mhm. par exemple l'opposition doit être plus forte que le chef boo demee noonu le groupe Futur Média doit être plus fort que Youssou Ndour cest comme ça quand on se projette dans ce dans ces trucs loolu moo arrivé et c'est pour cela que hier tout le Sénégal toog KO pourquoi le Sénégal est KO parce qu'on s'est rendu compte nit ñi dañu gis que un homme blesse tout est ah, loolu mooy loolu moo ñu dal démb. kenn moo blessé tout est perdu espoir nit ñi am na ñoo xam ne sax dem nañ ba ne nañ reporter coupe du monde. <laughs> waaw nañ def pétition reporter bon dañuy kaf peut-être mais dañuy exprimer loo xamante ne moo nekk moo nekk si ñoom. parce que ñoom dans leur imaginaire mënuñu xalaat Sénégal. dem coupe du monde sans son Sadio Mané alors que c'est dans l'ordre du possible actuellement maintenant mooy li ngay wax rek il faut se projeter dans l'éventualité d'un Sadio forfait ou bien d'un Sadio semi-forfait il euh, fu mu ne nii il faut parler à l'équipe pour mm. man Sadio bu ñëwee parce que euh, lépp communication la aussi lépp communication que Sadio Mané ba ñu jouer coupe du monde bi dem Bayern ba ñu jouer coupe du monde bi c'est quand même pas le problème même pour Bayer parce que du loolu ñoom du loolu moo gën si ñoom. effectivement donc seen communication sax foog ñu ñu. ñu hygiène ah oui xam na ñoom feneen lañ toll dañ xam sport. dañ dañ xam sport donc dafa am loo xamante ne mais ñun suñu biir ñun ñoo war a relativiser parce que c'est pas la fin du monde. affaire bi aussi c'est pas la fin du monde. faut que très rapidement loolu tax ma ne ça change tout parce que loo xamante ni ñu ngi ko doon calculer. Euh, coupe euh, parce que football c'est l'opium du peuple et ça ça a été prouvé il y pas longtemps ah ak suñu victoire bi dafa mel ni tout était bien ba nit ñi dëkk bi tout marchait très bien pourtant ñu ngi doon dund ay loo xamante ne jafe-jafe donc lii bu ñëwee nii faw nga gérer autrement équipe ba faw nga remobiliser équipe ba faw nga remobiliser dëkk ba parce que il n'est pas évident que Sénégalais yi dinañ xoolaat coupe du monde bi de la même manière avec Sadio Mané ou sans Sadio Mané mm. donc il y a quelque part benn genre repli Euh, si wala loo xamante ne affaissement lay doon te loolu warul am au hmm. contraire nit ñi war nañ gën a mobiliser wu autour de l'équipe parce que am na ñeneen ñoo xam ne tam dañuy football. am na benn journal bu ko bind ah ne une affaire d'état parce que gis nañ ni avant même l'équipe l'info de l'équipe président de la République boobu moo njëkk a tweeté di masawu ki nga xamante ne moom mooy Sadio Mané comme tu dis une blessure qui change tout. est-ce que yaakaar gi ñu amoon aussi ngir surtout situation dëkk bi sur le plan économique politique ak coupe du monde bi du ñëw Sadio Mané qui joue le Sénégal ki gagne amutoon lu mën a soppi ci ambiance bi dans ce pays. oui mais boo xoolee bon boo xoolee par exemple choix yoo xamante ne jël nañ ko si temps yi si wàllu wàññi njëg bi juste sur le chemin du mondial. parce que yoonu coupe du monde la décision yi lañ ko jël donc. dafa am loo xamante ne nu ngi ko doon def et kooku c'est à nu ngi koy def bu fekkente ne non seulement nécessité la te wax na wax na dëgg laal loolu parce que c'est une nécessité mais def ci kaw dynamique coupe du monde coupe du monde bi ñëw Sénégal da war a lu bëri lu bëri lay indi apaisement te dëkk di xam nañ que am na tension nous sommes sous tension politique démb rek ñu ñu wax affaire journaliste mm-hmm. tey mu am voilà on est sous tension politique bu fekkente en plus nga war a dund benn coupe du monde boo xamante ne ak découragement nga koy dund. da lay gën a metti nga mën a euh, supporter yenn yi. donc du coup euh, ambiance bi dina changer. et kooku il faut nit ñi xoolaat ko ñu jàpp si euh, calculer ko xam loo xamante ne moom la ñu war a def justement le pays au lieu mu vivre benn fête de coupe du monde mu bañ a vivre benn fièvre de la coupe du monde. Mmh. sànq yaa ngi doon wax naan li ñu war a miser xaj na mooy benn collectif bu fort plus fort que moom. Euh, Sadio sa personne ndax loolu mën nañ ko def et puis sur compter. Ah, si loolu defe naa mën nañ ko def euh, parce que équipe bi loolu tax euh, dama ne bi elle doit être parée à moment bu ne. à n'importe quel moment mun na am blessure mën na am joueur bu blessé. Mhm. maintenant dépendance si Sadio Mané. Euh, loolu moo am euh, moo moo moo moo posé problème parce que Sadio dépendance bi dafa rëy euh, si wàllu leadership parce que c'est quand même Sadio si Coupe d'Afrique bi qui rate un mm. penalty mais qui donne la Coupe d'Afrique c'est Sadio Mané qui contre Égypte même adversaire si biir loolu mu am beneen match boo xamante ni psychologiquement ak sur le footballistiquement daf ko gagné contre Salah ba nga xamante ne Salah dafa dem ba fay si loolu donc Sadio Mané dafa jël équipe bi porte ko jël Sénégal porté ko yóbbu ko fu sori au point de vue nga xamante ne sa blessure de deuxième ballon d'or c'est vrai mu nekk deuxième gannaaw ballon d'or mais la blessure de Sadio Mané a le tour du monde donc ça veut que nous on a c'est un joueur planétaire am benn statut boo xamante ne euh, c'est un statut mondial nit ñi xamal nañ ko donc c'est vrai que dépendance boobu dafay rëy mais on mais... a un effectif assez riche quand peut-être pour jéem a construire un bloc assez homogène pour dem à la conquête du monde. waaw il faut avec ou sans Sadio Mané. ça veut dire que waaw euh, il faut que d'abord que ñun sénégalais ñu ñu ñu teg l'équipe à sa l'équipe Sénégal outsider. bu mhm. fekkente ne outsider avec Sadio Mané ou sans Sadio Mané il faut ñu comprendre. il faut relativiser euh, il faut relativiser il y a beaucoup de choses yoo xamante ne nit ñi jaay nañ ko fi wax nañ ko fi. mel na daal euh, c'est vrai on est dix-huitième on est dans ñu ngi ñu ngi parmi les vingt meilleures équipes au monde mais boo demee ba quart de finale déjà yaa ngi si saisi wala yaa ngi si saisi Sénégal mos na nekk si saisi donc coupe du monde du c'est une autre compétition donc faut que ñu relativiser ba pare comment transformer bu fekkante ne Sadio Mané demul coupe du monde comment traumatisme boobu nga transformer ko en force comment d'une faiblesse on en fait une force kooku nag c'est Aliou Cissé c'est une question de discours ci euh, ci fédération nga la ak la capacité joueurs yi ñoom ñu mën a mobiliser wu ba pare jouer pour Sadio Mané parce que arrivé na fii moi je me rappelle bu ñuy jouer basket euh, 1997 si le juste avant si le kii blessé ñu am benn joueur euh, boo xamante ne moo euh, suñu référence mondiale nit ñi àdduna xamoon na ko muy Etienne Prera les joueurs dañ gagné pour moom donc la mobilisation boo xamante nit ñi dañ ko defoon léegi c'est sur ça qu'il faut travailler te loolu euh, Aliou Cissé moo si gën a am. Euh, et ñun peuple bi aussi am nañ ci euh, benn part de responsabilité parce que ñun il faut ñu won yeneen joueurs yi aussi que ñun gëm nañ leen on compte sur vous. waaw ça commence déjà par euh, boo xoolee entre démb ak tey lu ñuy wax yëpp dafa mel na il après après Sadio Mané yaa yaa alors qu'il y a des joueurs quand voilà. même yu nga xam ne de dimension mondiale parce que statistique yi nag Charles moo wane ni kat euh, sans Sadio Mané l'équipe euh, yaa rien loolu moom ba bi mu ñëwee équipe nationale de football ba léegi ay statistiques ñoo ko wane impliqué dans 40 ans mais moralité de l'histoire l'équipe doit être plus forte que le joueur le plus fort c'est ça la morale. le football est avant tout jeu collectif. la rupture individuelle mooy def différence. on a besoin de ce genre de on a besoin de ce genre de choses mais si tu ne l'as pas aussi ah il faut faire avec le groupe que tu as nga rendre leen. oui mais fi nga ko ñàkkee la xam nga doon xëy na teel nga ko ñàkk psychologiquement mais on est à 48 heures de la publication de la liste par le coach. ñàkkaguñ ko ñàkkaguñ ko nañ dundee yaakaar. bon espérons que ñu mais surtout ça li li mu wax mooy aspect psychologique de impact bi muy am ci ñeneen ñi tamit. waaw mën na am ñaar soit affaissement parce que la sénégalais yi ñoom mhm. ñooy wax euh, staff yi ñoom ñooy wax mais les joueurs yi nga xam ne ñoom la waroon bokkal dem ci compétition bi. waaw xam nga xam voit que Abdou Diallo. aussi ñooñu seen réaction day am solo. mais ñun sénégalais dañu émotif. il faut que ñu nangu ko d' abord il faut que ñu nangu d' abord que émotion la ñuy njëkk demal. Mhm. après calmer door a ñëw xool affaire yi donc on est émotif donc lépp loo xamante ne dafa xew si émotion nga koy dugal mais du émotion mooy mooy mooy jouer coupe du monde voilà il faut autre que léegi comment ban capacité et c'est kooku mooy le génie nga xamante ni mooy le génie de, de du leader mooy leader bi tey mooy kan mooy Aliou ci Cissé ak entourage bi quelle est la capacité d'une faiblesse wala d'une loo xamante ni moom dafa daanu nga jël ko transformer ko mu nekk force léegi liggéey bi fa ne kooku nag remobilisation boobu ci discours la si ay discours la comment nga jël benn joueur remonter ko ba mu fees ab ba mu kii ñu xamante ne bu ñuy jouer on joue en équipe. kooku nag day fekk nga reposer nga yor loo xamante ne mooy benn projet nga am sa ay plan de jeu nga xam si dañ doon football ba léegi pour Sadio Mané moom moo doon décanter situation nga football boobu day changer parce que dootoo jouer pour Sadio Mané da ngay changer Sadio newu fi bu fi newul. Mhm. donc da ngay jouer leneen. te loolu nag loolu mooy moom ngay teg si kaw place bi et encore une fois am na ay équipes yoo xamante ne. seen star yi demuñu seen leader yi demuñu mais ça marchait très fort ça marchait très fort kooku Brésil def na ko fii donc capacité remobilisation équipe bi mais quand je dis tout man lu mu bëgg mooy que euh, euh l'idée aussi mooy que il n'y a pas que le foot coupe du monde bi du football du football rek parce que si yeneen domaine aussi bu ñu xoolee bu baax a baax par rapport à situation voilà y a l'économie euh, maillot yaa ngi fi woon est-ce que maillot yi ñëw nañ en yu bëri ñu ñaa ngi ne ko cher ñu cherul bon on peut discuter on peut dire de tout ça mais est-ce que nit ñi euh, maanaam euh, lu ñu doon demee avec Sadio Mané euphorie bu ñu amoon engouement bi est-ce que dina fi des pour ñu demaat si maillot yi. ça veut dire que il va falloir que joueurs yi sur le terrain dès le premier match sans Sadio Mané ñu dalal xel yi pour que maillot yi ñu mën ko jaay. pour que très rapidement ñu liggéey de telle manière nga xamante ne ñoom ñoo dem investir indi pour que sénégalais yi mun a jënd ma donc du point de vue économie. dafa am loo xamante ne droit de retransmission yi mais média y a les droits diffuser match marché yi nit ñi ñëw di seetaan marché yi foofu parce que loolu yëpp dafa bokk donc au delà ça change tout oui. donc quand je dis ça y a l' aspect am na aspect économique maanaam ñoo xam ne dañuy dund si kaw euh, teg ay investissement yu am maanaam mais y a aussi politique parce que ku nekk dinga nga chercher loo xamante ne loolu mooy nekk sa force si biir situation mbaa day arrangé nii c'est très bien bu leen arrangé wul ñeneen ñi lu ñuy def donc perspective yi dañuy changé. gis nañu record bind ni Sadio sera sur la liste donc ça veut dire que tey même bu même bu blessé est-ce que du du ñëw moom bokk ci groupe bi nekk un leader dans le vestiaire en attendant peut-être muy mu muy recouvrer la plénitude de ses moyens. waaw bon euh, si liste bi bon présence su Sadio Mané si liste bi mooy bu fekkante bu fekkante ne tam bokkul si coupe du monde bi di du jouer coupe du monde bi présence m mun na indi lu bëri parce que c'est quand même na galvaniser gars li Charles doon wax sànq apparemment moom la moom la Odia caricaturé parce que dafa euh, dafa imbriqué def en link euh, situation politique bi ainsi que les blessures Sadio Mané bi juste pour dire que y a pas que l'aspect sportif voilà mu faj Sadio. fu mu ne ni kay amul sëriñ bu ay boo xamante ne yaa ngi ne. teg sa <laughs> xoolee fu mu ne ni kay sëriñ képp koo xamante ne ay na ñu ngi wax ak yow pàcc bi wala pàcc. wala pàcc beneen bi <laughs> ñu ngi wax ak yow defaral wala yàqal. boo donc Sénégal moo non pour dire rek. ba ca rëbës ñeneen tamit blessé nañ leen mais c' pour montrer rek. que c' est waaw Odia aussi caricaturiste mais éditorialiste. bon et le régime. de toute façon voilà c' est ça. c' est un éditorialiste parce que c' est moyen d' également. voilà éditorialiste la donc c' est dire qu'on a vu juste. Euh, lu euh, ñu ko lu ma bon lu ma ko xalaatee noonu la ko gisee dessiné ko euh, c'est un Sadio Mané newul coupe du monde c'est tout qui change. Mm. en tout en tout cas pour rappeler rek pour euh, con euh, compléter li nga doon wax jeexalee foofu Charles c'est que euh, comme ni ma yàgg wax Aliou Cissé moom ñëpp xam nañ ne ne l'aspect technico-tactique c'est pas quelque chose forcément qu'il maîtrise mais ci li mu inculqué état d'esprit état d'esprit non ñaar yëpp laa boole woon mais je veux dire état d'esprit bi mu bi mu bi mu inculqué joueurs yi depuis qu'il est depuis qu'il est à la tête de cette sélection nationale surtout moom moo moom moom mooy def son son fort donc je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter ci li nga xamante ne moom mooy discours bi mu mën a jox Euh, pour galvaniser les troupes euh, par rapport à ce à ce mondial là et puis euh, autre chose mooy coupe du monde toute compétition hein dëgg la ci tàmbali bi mën na am nit ci découragé mais je rappelle que c'est au fur et à mesure que les choses se dessinent que la ñuy mën a xam mbir yi naka on l'a vu avec la CAN les premiers matchs on n'était pas trop euphorique parce que dañoo tàmbali ak équipe bu Zimbabwe gagné leen sur le fil 1-0 euh, sur un penalty de Sadio Mané justement mais après on s'est on s'est rendu compte que l'appétit est venu en mangeant après. L'équipe est montée en puissance par la suite on espère que ce sera le cas ci coupe du monde bi. mais Aliou Cissé xeex xeexkat la quand même dafa am tempérament c'est quelque mooy boo ko acculé aussi nit genre nit la boo xamante ni boo ko acculé. dafay xeex euh, euh, en 2000 2002 euh, souvenir bu ñu jàpp bu ñu jàppoon si moom moom lañ doon wax l'aboyeur. donc mu ngi nekk ci contexte boo xamante ne tey euh, aboyeur googu nga xamante ne moo defoon doole 2002 euh, moo doon moo doon yuuxu yóbbu kii ba ba tiital français yi si euh, si vestiaire yi bu ñuy jouer avant avant coupe du monde aboyeur boobu tey la ko Sénégal gën a soxla. tey la ko équipe bi gën a soxla te bu fekkente ne bon je pense que moom déjà depuis démb moom si boppam war na moom depuis ba commencé xalaat A wala B parce que mënul xaar ba. Euh, du Allemagne ne ko non Sadio Mané est prêt mënul xaar loolu donc faw mu am A plan A plan B donc il travaille sur deux plans et psychologiquement il est sama xalaat il est déjà prêt mhm. pour le pire mooy que jouer mhm. coupe du monde bi sans Sadio Mané mais li ñu doon wax rek léegi Charles mooy la cascade de blessures ak compétition bi fi mu placé wu les championnats européens les jours sont surutilisés Sadio il a plus de quatre-vingt-dix matchs dans les jambes donc dafay fragiliser les organismes est-ce que même coupe du monde bi dina ñu am niveau bi ñuy soxla wala bokk rendement bi ñuy soxla ci joueurs yi nga xam ne dañuy ñëw avec euh, sur les rotules quoi. mais Sadio match euh, Sadio Mané démb c'était son douzième match en six semaines. Mm-hmm. Euh, rythme boobu c'est infernal un match tous les deux trois jours tous les trois jours joueurs yi dañuy organisme yi bon quoi qu'on ak traitement boo munti am euh, seen niveau de médical ak fu munti yem garab yu am quoi qu'on dise ça use quand parce que luñ leen di laaj dafa bëri euh, organisme yi c'est usé on a ñu jël coupe du monde bi coupe du monde bu hors saison la coupe du monde boo xamante ne ñu ngi koy joué si si moment yi nga xamante ne équipe yi ñu ngi en pleine phase de ñoo xamante ni ñoo internationaux yi parce que internationaux yu bëri yu si ëpp dañuy jouer la ligue des champions wala la ligue euh, lu mu tudd les Copa América pour nga jël ligue euh, maanaam ligue des champions un match de groupe yëpp si instant yi lay pare nga bëgg a pare match de groupe dem coupe du monde. c'est quand même boole sa championnat boole sa championnat alors que avec la ligue des champions coupe du monde bu nekkee par exemple euh, juin juillet wala août avantage que mooy que ñoo xamante ne toog nañu. Ligue des champion premier tour on se reposer après c'est ñoo xamante ne ñoom ñooy dem huitième seizième et au fur et mesure on a moins de temps de jeu mais organiser ko si jamono yi c'est un peu complexe wante bon. Euh, même les sélectionneurs disposent des joueurs presque à une semaine de la compétition. waaw mais ça c'est kooku moom. Euh, dafa ko métti na quoi. waaw dafa bon loolu dafa métti mais kooku tubaab yi ñoom ñoo ko bëgg ah bon tey boo xoolee on est en train de fair benn procès au Qatar bu dul jeex mu ngi mel na bon euh, loo xamante ni 2010 démb rek ñoom ñu ngi commencé di wax lu bëri si loo xamante ne. Euh, nit ñi passé nañ ko coupe du monde bi on est à quelques dix jours de la coupe du monde nañ ko jouer nañ ko jouer jouer bu ñu dem mais bu ñu euh, c'est quand même mënuñu tey Qatar tam di ko sos ay loo xamante ne mu mënuñu ko prouver euh, ils ont eu dañ gagné le droit def nañ tous les efforts qu'il faut ay stade demontable ak yu demee noonu maintenant il faut jouer cette coupe du monde et l'Occident ne bon moom rek mënul dicter quand même la voie du football au monde ñi mën a fas nañu fas ñi mën a mocc nañu mocc waaye Sadio na ñëw. merci beaucoup euh, Charles ci jàngat bi dañuy jàll léegi ci fonk bu mujj ci Infos Matin.